salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV yëpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen jaar di am mbégte contentement di ànd ak yéen saa su ne programme Lutte TV tey nag ñu ngi fi foog naa fi mooy écurie Ngoundiane fekk fi champion yi fekk fi ki nga xamante ne maanaam mooy tête de file bi duñ def dara rek lu dul nuyu ko dalal ko ba ko mu nuyoo ñi koy seetaan Lutte TV ngel joon ziar naa la. waaw ziar naa la bu xër di ziar waa Lutte TV di ziar mbokk àdduna bi yëpp di ziar mboolem kuy fekk kuy bëgg làmb rek ñu lay ziar xam nga. Mhm. naan dal jaam fii mooy mhm. écrin gu ñaan. Mhm. champion yëpp yaa ngi fii. xam nga di bëgg gaa yëpp ku mel ni Mbaye Diagne junior ak Libidoor xam di bëgg ñoom sangu ñaan suñu entraîneur xam nga. Gallo Nguer xam nga. gaa koo xam na suñu nitu bopp la mooy Ndiak Sarr ndax Ndiak Sarr xam nga mhm. day jàpp si entrain entraînement yi bu baax di santé xam nga muy Facebook. Mhm. mbudaay ne champion yooyu bëri nañ fi xam nga mhm. ñoom assurance yëpp a ngi fi. di bëgg gaa yëpp di bëgg xam nga kuy bëgg écrit ngu ñaan rek xam nga muy loolu non <laughs> noo jaara jaara boo koo bëgg à part la koo muy loolu koo mooy la waaw mais naka fii naka tërën yi écrit bi est-ce que yéen a normal parce que am na écrit yoo xamante ne écrit écrit la ñuy wax rek waaye entraîné wuñu non écrit bi nag muy loolu ñoo ngi ci bu baax ndax mhm. fii moom gontoto entraînement c'est loolu problème la ndax njaag saa du la bàyyi noonu sax ngay nekk fi di noyal fii muy loolu ñun chaque jour ñuy ci entraînement mhm. ñun chaque jour ñu ci entraînement moom. waaw ci entraînement yi. waaw mbër yi gars yi libi door moom am na combat. ak kan non libi am na combat loolu suñu bés la. ak yow ah? <laughs> non. <laughs> mën na bi combat bi na coow de ñaar. non man a Grand Manick ah. Hmm. non Grand Manick man du ma wax ci moom lu bari ndax man. Hmm. ba may wax damay wax koo xam ne muy loolu da nga siifu nit man dama yaakaar ne Grand Manick. Hmm. xam nga nit ki di nga ko di ko ñàkk xam ba jël ko door ko xam. man loolu laa gis ne loolu mooy affaire yi. Grand kii Grand kii nii. Kalmu Ndour ah Kalmu man dama yaakaar ne dafa xaar ba jël ma door maa siifa doo maa dëgg ñu ne ko nii la demee xam na la parce que bëri ngeen ma gëm ne dafa yaakoo ne man dama xeer ci li ba nga xam ne man bëriwuma bëri door te ma am douze combats bëri door mais moom dégg naa ci biir waxam mu ne xam nga trois combats laa def xam nga nga bëri Dakar waaw <laughs> moom loolu tax ma ne xamuma na ma laajtawaat bu baax mhm. ku def douze combats benn combat laa bëri boo xam ne bu nekkul Dakar na xool na xool vidéo yi yëpp. na xool archive benn combat la boo xam ne gara muy combat boobu muy noxoon saa Ngunjaan ak jaf jël. Mhm. ci laa bëre woon combat boobu laa bëre du dul Dakar mais combat yi ci des yëpp muy loolu te Grand Magic man li ma koy wax bëri woon ndax xamal na mhm. fi ma jaar bu fa jaaree du fa egg. foo mujjee daan. maa ngi mujjee da kii laa mujjee daan ñaari daan ñaari yaar. ñaari yaar koo xam ne combat boo xam ne matul seconde. Mhm. matul seconde kooku bu teewoon kooku daf koy daan. yaakaar na Mbagnick mënul daan ñaari yaar. waaye Mbagnick fan la mën a. sept combat la def de amagul defet de. waaye luy sept combat douze combat ak sept combat daa bokk. te maa ngi koy dégg ci biir wax muy naan ay ngaljon bi <laughs> ma koy daan ndax xele la. waaw nee na bi nga koy daan xale la. nga encouragé ko ngeen waaw ci biir année bi lañ bëre lu ñu bëre yëpp. dama ko dama daa ñëw mburuwaay première année bi. Mhm. mu jël fa xaw ma raw gadu mooy dimilase mooy poussière bu ndaw bi xam boobu ay booy champion gu ñaan duñ fa nekk ay booy ay drapeau booy la mu dem foo jël ko mais bu ma dëggaatee moom day ñëw après tabaski mhm. <laughs> bu mu fa dugaatee dootu ko def barki Sëriñ Bàmba ci seconde laa ko daan ci seconde dama ko fiir est nekkul da nga ko nax non naxuma ko ndax boobu man xiif naa ko te mu wóor ma ne man kuy ñëw nguñaan gan hmm. ngal joon nga fay fekk ma teeru ko bu dee mos na comme drapeau poids léger bi noonu. Mhm. dina yëgaat ma xaar ko foofu ci kaw mais bu mu ñëwee bil deewul la wa taxe ma touché ko ñu borewaat xam nga. Mhm. ma daanaat ko deuxième troisième fois laa ko doon fooye yow dama yaakaar ne boo garaayaaf boo xëy la làmb joo yow di nga ko di ko gis. bi mu lay daan Grand Yoff fekkee naa Grand Yoff man maa ko tee wane ko ba adduna bi yëpp di kii dama ko dama ko doon daan dama ko doon daan xaw ma mu xaw a noonu ans rek mais xam nga ne Grand Médine kooku kooku man du ma moroomam du ma émission bi bu ci bari sax man du may wax ci moom lu bëri ndax. man dinañ ci wax parce que moom nee na ay mbokkam ñoo ko ne moo la raw moo tax mu Grand Manick daa daf maa jël. Mhm. xamagul lan la commencé nekk ci ay affaire parce que na Assane moom loxo bi sumeeku na. Mhm. comprendre gul. nekkatul à l'aise est-ce que nekkul da nga ko waajal tam. non barki alxuraanu kari moom comprendre Grand Manick bu ñëwoon jour ba ma def ko comme xale. comme xale laa koy def. rey mbër ko daan tamit. man dama gëm nag maanaam jàpp mbër ba du mun a dara mu ñëw nga wulee wuli ba kon. mais man dama ko naroon a wone ndax dama ko naroon a wone. Grand Mbagnick bu ma ko woon dama koy wone dama koy def ni comme xale. du ma ko daan ko. non waaye moom gisul gisul dara c'est daa am sens. ndax moom si lu mu def noonu la quoi ndax nit boo demee ba xamatoo loo foo jëm. da a loo xam ne góor war na koo mën a jomm mooy xam nga man du ma lekk avance ba pare di ko delluwaat di taxawaat di naan ay ma ma ma di wa delloo avance bi. man de tam Assane Ndiaye lu mu deful da leen waroon yóbbu Italie loolu bokk na si contrat yi. mais loolu passé wul moom na lekk avance bi rek. Mhm. na lekk avance bi rek loolu daa passé combat bi eggagul kay amagul date. Hmm. na xaar rek ba bañ a dem door a lijjante loolu. ni nga amee Grand Mbagnick daal daw na daw na amul wax. Hmm. te man dama bëgg àdduna bi yëpp xam ne Grand moo daw man du ma daw combat man mënuma bëgg a bëre ba pare di daw ay combat man du ma laaj nit ba pare di daw man loolu duma ko def ci kaw àdduna. est-ce que moo la doon laaj. combat man Grand Mbagnick maa ko daw di. deux ans la ma topp di mën naan xel jon bu dul tafaatin bawol bu dul tafaatin xel jon xel jon laa fa am adversaire am na xel jon kay. Hmm. xam nga Poulay Tafatine kay am na ko kay ko kay jarul ay daw kon na daa waroon a ko combat bi rek. Hmm. man dama gëm ne mbudaay ne bi mbuda mbudaay ne. mbudaay ne bu teewoon bu teewoon grand Manick. doo Manick moo mën mbudaay ne nag. yow xam nga mbudaay bu baax. yow da nga koy amagul defet mbudaay ne xam naa ko dama koy fekk. waaw mbudaay mbudaay ne daa daa amagul defet amagul defet mënul Manick. yow da nga baax rek. yow maanaam comme ñemewul te xam naa ne xam naa ne ragalu la ñeme na la. waaye sëñ Tuba ñemewu ma. Manick ragalu la de. non xam nga lu tax man ñemewu ma. Mhm. man dama yaakaaroon ne bi ma jëlee combat bi bu ma demoon ba man dama jël décision delloo avance man du ma jël combat man nag du ma laaj nit ki ba pare di delloo ay moom nee na stafam. nee na stafam ñoo ñoo d'accordul ñu koy ñaanal ak ay nijaayam ñoo ko bul bëri moom mu delloo avance. man man xam moom moom bu demoon yow kese kese kese moom suba ngeen laale. waaw mais loolu problème mais xam na naa ko. Hmm? combat bi bari Serigne Bamba laa la wax nii pare jaaro bi rek daa xajul ci combat ci combat boobu. jaara bu ngal joon pare boobu xel yu ci combat bi ndax am naa xoolal jour boobu xoolal am na loolu def mm-hmm. indi xaalis bu bari jox teg sama loxo ne ma demal pare ji feesal ndox kër gi ak boisson ak ndox gars yi naan lekk ba suur naan ndox bu sedd naan ay boisson ñu dem stade ma dem daan ko loolu du problème ba mu dóor la nga daanu barki Serigne Touba Mbacke billaahi grand manik cuune la daan papier xam ne moom daa am lu mu wax ci biir wax ji koo xam ne gars yi ñemewuñ ko boo ko jëlee boo ko daanee xaw ma du am njëriñ koo xam ne man mii gars yi ñemewuñ ma moom nag moom ma waroon a jël wone ma nga xam ne champion champion lay daan ba pare door a doon champion mais ban foofu bon foofu ba daa wax wax joo xam ne taxawul hmm. man dama bu ma xamoon ne Grand du champion du ko jël bon bu xam bu ma xamee ne champion la dama koy dama koy daan ba pare door a woon gars yi gars yi xam ne ah Ngaljon daan na Grand Mbagnick champion la mais di wax wax joo xam ne wa non man ko wax wax waxu dof lay wax waxu dof man ki ma bëgg a bëral muy ci entraîneur bi rek Ndiakhou Sarr ne suba suba avancement yi ci kii Assane Ndiaye bu dee Gara daw na avance bàyyi ci Assane Ndiaye. Ibou Senghor ren na avance ma nga si Serigne Modou Niang. waaw Ibou Senghor dama ko soxla. Ibou Senghor 12 combats la def. <laughs> waaw Ibou Senghor bu bëree 12 combats yi <laughs> Ibou Senghor maa ngi koy nuyu à passage maa ngi koy nuyu à passage gaa yëpp. waa di doole waaw non moom champion la mais man gisaguma ñëw man ma bëgg boo yoo xam ne xam nga dañoo. ma jox la Ibou Ndapa numéro 2. non jël la ko wala bëggoo bëri moom. no man muy loolu man champion yooyu mag laa soxla. comme que xanaa amoo comme kii grand Mbagnick xam nga kan laa soxla seen écrit. Hmm. boo ñaa seen tëdd. boo ñaa Tapha la ñuy wax moom jamono non no man Tapha Tine Tapha Tine du jël kooku. Tapha Tine Tapha Tine ay ñoom Balla Gaye lay jël ñoom ñoom Bombardier. Tapha Tine nag mënul bañ boo ñaa nag. non mais man xam nga la xam nga ne man kii daw na avance bi nañ ko waxati. grand ma ga daw na avance. ma jox booy booy ñaa. say mbokk moom boo leen tàggoo ne da ngay jël booy ñaa. barki Serigne Bamba laa la woon amul càppaacole amul kii. ku daan gargam boo kii xamalan la kii xamalan la nag bu suur bi la de. barki Serigne Bamba suur ba bu ma waxee jëmale kanam ngu ñaan nekk sama ginnaaw bari Serigne tubaa amoo li may ragal mu diw la ci nu fondé waaw na na diw fondé man sama béjjën laa yor fu ma samp dama koy bés jaar sama yoon bari Serigne Bamba Tafatine comme bëriwul ah, saison mu ngi fi di année Tafatine soxlawul kooku Tafatine soxlawul kooku Tafatine soxlawul kooku bu dee problème daal daw na wal nañ ma ko jox mbër bu jaadu non combat boobu na combat boobu jaadu na combat waaw tey ku la joxoon ay ay ay ay nuñ ko mën a waxatee sax mbër bii nii Sococim. Sococim ñeme nga ko. Sococim na jël avance bi. est-ce que ñeme nga Sococim. ba Serigne Bamba ñeme naa ko ñam la yor di dóor rek moom tam dóor tam mu tam combat bu dee bu dee may chance maa koy may chance. nit mën ta année quatre quatre quatre ans la année balance léegi mu doon cinq ans. bon kooku ku ko jëlit xam nga da ngay da nga koy da arrangé rek boog mu boog mu dugaat ci làmb ji nga duma ko Serigne Ndiaye muy loolu xam nga bëri nañ benn yoon xam nga yàlla xam na mu demee waaw amu ragal mais. làmb ngi ci suñu kanam awaas bu ñëwee it yaa salaam. man baaw njaax ku mu wax ne suba suba laa la wax suba hmm. suba ku ñëw ma lek suba suba suba suba. man mbër bu mat ay cent vingt mbër bu mat cent vingt cent vingt kilos mbër bu mat cent vingt kilos. barki Sëriñ Bamba awaas boo mënta jël. Hmm. di jéem a hésité kii mënuma koo jël bu yeboo nga bàyyi bëre. waaye man daa am ku may ragal ci làmb ji aw ma ku may ragal ci làmb ji. Hmm. barki Sëriñ Bamba kon instant yi daal yow daal waa Ngunjaan nga fi. man ek di Ngunjaan laa fi bàyyi mooy mafia bi nii nii. gars nii laa fi bàyyi ay 100% mooy 100% bi day dox de. 100% bi day dox Tapha Tine mooy suñu grand bi. Mhm. di bëgg waale Boursin xam nga yàlla may ko ndam commande bu muy jub bu muy jub si nii waaw. di bëgg gars yi yëpp gars yi waaw 100% bi day dox carrément man soxla mu mbëru Bawol. Tapha Tine bi fi ne di année balance. non tafaatin gaa yi ko ñemewul rek gaa yi ko ñemewul mais tafaatin da nga xam ne nag mooy tax ci rëb parce que Serigne Ba jël moo ne la gaa yi mën nañoo Ama Baldé ko mujjee daan de. ko daan mais xam nga mbër mbër dina am sarax. Ama Baldé nag du saraxu kenn nga. barke Serigne Bamba la waaye sarax sarax la sarax la combat boobu yow mi nga xam ne yow xam ne da ngay dund affaire bi sax yow xam nga ne combat boobu sarax la. daal lamb la rek. waaw lamb lamb la mais léeg-léeg muy loolu a ki mbokam Ama a ki mbokam ah mais mais làmb la rek mais ku ko gis loolu xam ne yow loolu ko lu tax jëlaatu ko tabaas. amaa moom ku ko ku ko ku ko xam ku ko gis nii si taay mën nga koy xeeb waaye bëri tam. waaw mais gars yëpp ay champion la loo xam ne muy loolu. Tapha Tine Lac de Guiers. waaw loolu combat la waaw. combat bu neex. la waaw revanche bu neex la moom. Ah, da ko daanoon de. waaw Tapha Tine mën na bëree Gris Bordeaux. wala Bombardier revanche bi. waaw. Hmm, dooroon na ko door yu métti de. <laughs> ah waaw daf koy foofu lay delluwaat rek muy loolu. Hmm. ma ñëw si lutte simple bi. Hmm. gars nee nañ Franc dafa ñëw ngeen daw. mais non non non. lu xew man man man man sawar naa. xam ngel joon 500000 sax bu ñu ko tegaan mu ñëw samp bëjën bi. mais mais noonu la ko demee man woo ma la 500000 sax man la laamu laay dund. man dund xam ah, nga daa am na mbër yoo xam ne mbëru xaalis lañu. Mhm. mais man du ma mbëru xaalis man mbëru làmb la. Mhm. man làmb man wala <laughs> muy gën a ne sama gis ma gis ma gis tribune bi fees dël. ponkal yi fees. ponkal yi nga xam ne muy loolu gars yëpp ñëw man foofu laay gën a yëngoo mais saa ma daanoo ci làmb xamal ne poids lu li lu waral nga raar. non dama lël dama dama yow ma rek xool ma bu baax. dama dama doon liggéey am li ma am li ma waajaat muy loolu ma ñëwaatee gars yi nañu xam ne muy loolu pare na mm-hmm. waaw. kon gars yi daal mën nañ la xaarandi daal. nañ ma xaar loolu kay na ma yëngalaat. Mm-hmm. waat affaire yi xam nga ne gars yi instant na namu nañ ko. Mm-hmm. barki sëriñ Bamba. lutte simple bi jafe-jafe yi yiñ si si mbëri di jàkkoonte li si ëpp lan la. non. dama yaakaar ñuy kaas 1000 francs yi ñi arbitrage arbitrage la ñuy kaas yaa ma gën a non man nag yàlla dafa def na man ay problème mu arbitre wala yooyu noonu man moom amu problème yooyu man ndax man mm-hmm. man moom sama combat day mm-hmm. man du ma sonal arbitre man muy loolu man duma ma sonal arbitre mayante bi nga ne mayante nag man may ma mayante kenn amul kenn ko mayante man daal ñii laa fi am ay ñoom libit dóor xam ñoom yegg kii yegg sil assurance yi ñoom bu daal man noodu loolu noodu loolu xam nga ñooñu day dëggante téléphone saa ñu waree ñëw man ma ma ma a ñëw wala làmb yi bëri nañ ma dem ci àll bi wala ñoom it ma lool non seen xel man xam naa nu mu demee seen seen dañoo tàng ay affaire de hmm. waaw man loolu na dinaa ko mais jamono ji daal mën nga ñu mën nañ la xaar ni nga wàcc si. waaye luy loolu millions yi ñuy ñuy ñuy fi. Hmm. te échange muy loolu na mën nañ ay millions trop. Hmm. waaw kon looy tëjee. no di sant waa ñaan di sant mboolem koo xam ne xam nga yaa ngi bëgg ngal joon xam nga di siyaar ñëpp di magal ñëpp. Hmm. xam nga di leen di sant ñi nga xam ne muy loolu def ngeen émission ñëw fii Écurie Ngoundiane ñu ngi leen di sant lu bëree bëri di bëgg gaa yëpp mboolem kuy dund làmb rek ñu la ci bëgg xam di sant sama yaay xam nga sama papa fu mu nekk suuf oyof si kawam maa ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp xam nga di ñaan jàmm senegal di ñaan jàmm jàmm àdduna yëpp maa ngi bëggee ñëpp. maa ngi bëggee ñëpp jaajëf. ayca ñu ngi coach bi rek ba tey rek ziar nañ la. bon ñu ngi lay nuyu. Mhm. bu baax. Mhm. yaa ngi équipe bi nga àndal yëpp. Mhm. di nuyu waa Ngoundiane. di nuyu mbëri Ngoundiane yëpp di kiital saa Ngoundiane. ba ci Facebook bi nga xam ne moo ci gën a nekk xale maa ngi nuyu ñëpp di nuyu maam Diarra Bonguel Dione. di nuyu Mbaye Dione monsieur le maire maa ngi koy nuyu bu baax baax ko wax ne ko mu jàppale booy mi ngi ciy jàpp mais na ci gën a jàpp di nuyu sama soxna di nuyu waa Touba gépp di nuyu sama mbokk yëpp. képp koo xam ne yaa ngi ñëw di jàpp ci Kër Ngoundiane rek maa ngi lay nuyu parce que jàpp naa ne li def man nga koy defal. Kër Ngoundiane entraînement yi naka la est-ce que booy yi respecté nañ waaw entraînement yi moom vraiment moom jaar na yoon parce que man niñ ma déggalee sax sama xam-xam tollul noonu. Mhm. mais peut-être xam nga ñun dañu nekk ay presque ay morom lañ ñun ñëpp parce que ñoom mm-hmm. mag seeni mag la woon ñu màgg fekk si ma. Mm-hmm. kon dañ may miin miin bi nga xam ne bii duñ ma rus. Mm-hmm. duñ ma ragal cër bi nag mën na fee nekk. loolu laa jàpp quoi moo tax ba lu ma leen teg daal bi ñuy liggéey entraînement yeeg li nga leen di waaw maa ngi am satisfaction bu baax parce que Ikiri Ngoundiane bay boo ma ne am na 60 ans. te donc bi ma jëlee écrit beeg léegi bu ma xoolee ci ay 10 la toll. te génne naa ci ay mbër. ba àdduna sépp ñu xam leen. ñuy bëri ay millions. kon presque li mag ñi mënutoon ak grand yi ñun xale yi mën nañ ko. kon bay boo man daal am nañ satisfaction totale. waaw. Libidor am na combat Ngel Jon delloo nañ avance am pour yow ñu mu waral bëril ay combat choc. waaw combat choc du combat choc. parce que boo gisee ñoom ñëpp adversaire yi ñuy jël mooy nit ñi ba seen morom ñu leen nanguwut a jël rek. saa yoo gisee ñu bëri si rek day yomb danaan ax ah, day yomb trop. waaw parce que ñi ñuy bëreel jamono jii. Mhm. ñàkk pexe la mais waruñoo bëree ak ñooñu. mais mbër ma doon di entraîné te du bëri. est que dawante bi bokkul si li soxal ji. waaw lamb ji dafa soxe en mhm. sponsor yi dañu daw. Mhm. promoteurs yi fu ñuy dugal seen xaalis dañ koy xool. te itam mbëri fi ne nii dañu koo centré wu ci sëriñ ba nga xam ne mhm. da ngay gis benn sàmm bu nekk fële sax mhm. nga jël combat mu ne la da ngay daanu nga gëm ko mhm. dootoo gëm sa bopp te làmb boo xoolee daal doole da ci am solo trop ak entraînement entraînement daal waaw daf o am doole mooy numéro un mooy numéro un o ko doon jox koo koy fi mu ne nii mook Elton combat la mook Soko Sim combat la euh, waaw ñaar ñooñ daal bu ma ci am baax na

ñun bëri bëri dóor vraiment defuñu ko lamb sax. Elton daal day yomb ci moom. non defuñu ko lamb billaay bëri dóor man defuma ko lamb billaay walaay talaay. Mhm. góor lépp lu mu ànd ak ay bokkam préparé ko 30 jours. Mhm. a yomb. Mhm. waaw pour man bëri dóor daal du combat. kon loolu koy ñaaxee maanaam li ko dese si carrière bi rek. li ma koy ñaaxee li dese si carrière bi daal mooy xam fi mu jëm xam ne moomatul boppam. Euh, parce que nit boo demee ba fukki nit bëgg la. rawatina réew toog raw am réew bëgg la. kon moomatoo sa bopp war ngaa xool fi ngay teg sa tànk Euh, lépp loo xam ne daal bu ñu la ci fekkee di la ci yedd nga moytu loolu nga xam ne da nga bàyyi sa lépp jàpp làmb te boo ci concentré wu mën nga ci li nga bëgg kon nga respecté làmb. ay ca mbokk yi waaw gis ngeen sa waay li mu wax coach bi wax na di leen jox dig daje rek ba beneen yoon incha allah.